que boobaag léegi dégguñu la est-ce que promoteurs lay woo di la démarché. waaw moom boobaag léegi moom maa ngi toog sama ruq di entraîné promoteurs yi ñu ngi may woo comprendre ñu ngi may wax ay mais tamit peut yi ñoo nangoogul waaw mais ñu ngi suñu ruq ñu ngi bu baax a baax a baax. lii waa adversaire yi ñoo nangoogul yan adversaire lañ lay problème mu la wala. waaw peut ñoom problème kese la ci ñoom ah mais man moom boo ma fayee fii dërëm sax damay bëre parce que man sama staff moo demee noonu avance bu dugg du génnaat. comprendre nga dugg du génnaat parce que bari na gis naa fi ay interview yoo xam ne nii xam nga ay gay naa ko ñu ngi war ci presse bi di wax lu ne laaj wax nañ ma ko mais nag man moom damaa mënewul wax man moom jëf laa gën a mën a. yàq nañ la ko lañ la la wax loo xamante ni tax na yaa ngi ciy prête attention. waaw non bàyyiwuma ci xel dara parce que xam nga wax ju ñaaw moom da koy fëlteel rek mu jàll. waaw mooy bu dee wax ju rafet la mën nañ koo segg jël li ci baax lépp kii ko mais wax ju ñaaw moom du ma ci bëgg di delluwaat mais li l'essentiel bi mooy ku ci wax lu ñaaw après day. ay conséquences wax ju ñaaw dafa mel ni wax ji xaw na la touché tuuti lan la wax. waaw ah, non rek ay wax yoo xam ne bu mënuma cee dellu parce que ci ci ci ci kii laa nekk. non waxal parce que wax ju ñaaw la doo entraîné da nga ñemewul wala. waaw ah, non xam nga rek ay booyu ndey parce que man tey ji damay sant yàlla xam nga lu tax may sant yàlla. gay ko moom mi toog di wax moom ba may bëri sama premier combat moo bëri grand combat bi. comprendre nga kon moom aw ma lenn loo xam ni dama ko koy wax moom dafa bokk ci sama yoon rek dama ko war dama war a jaar jàll ci kawam rek. waaw moo tax nga pour jël ko. moo tax pare naa pour bëreeg moom comme que moo ngi war di wax bu ñëwee ma ma bëreeg moom. bu dul moom. bu moom bari naa ay adversaire ay Nokia jox na leen fi sama avance ñu bañ. ay Nokia USA 2 na ñëw ñu bëre. Tafa Tafa Boy Bambara na ñëw ñu bëre. pare naa pour bëreeg ñoom. Mhm. même Mama yaa sax bu ñëwee ñu bëre. Mama yaa am na combat am na ka doole la jël. bu ci paree ñoom ñaar ku ci pare bëgg naa la. pourquoi pas pare naa pour bëreeg moom bu bu bu bu Ndandi Fall ñemee Ndandi Fall doo ragal. damaa soxor de. barki maam jaara damaa soxor. mbëri amatul lu ma leen di négocier wala nii ak nii ak nii dama leen defal bu cur billaay wallaay amul yooyu de.